حمدا يملا ما بين ارضه وسمائه والصلاه والسلام على افصح الحرب والحجم المبعوث رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته قر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام في مشارق الأرض ومخاربها أيها الأحبة في الله السلام عليكم wa rahmatullahi wa mbokk ñuy seetaan ànd ak ñun ci seen programme diine ji fii ci ay Africa TV moo xam ñi nekk ci biir réew mi la ak ñi nekk ci bitim réew di ñu topp àjjuma ju nekk ci waxtu wi ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk ci goxu àdduna bi di ñaan yàlla suñu nuyoo bi yal na fekk ñépp ci jàmm ku mu fekkoon ci xat-xat walla mu fekk la ci wéradi moo xam wéradi bu la tëral ci lal la walla wéradi booy sooxaaleeg moom walla mu fekkee la ñàkk walla néew doole ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla saafara yal na ko yàlla jeexal ñi mu fekk ñu jiitu ñu ci këru barsak ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yal na leen yàlla àtte ci yërmandem yal na yàlla jéggal ñépp waaye yal na yàlla goreel ñëpp yal na yàlla baal ñëpp ñun ñi fi des di dund ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci boppam waaye di ñu gis fi ñu bëgg a gis di ñu fekk fi ñu bëgg a fekk moom yàlla waaye di dégg ci suñuy kàddu kàddu yu yiw yu sell yim bëgg a dégg ci jaamam bi ko gëm yal nañu yàlla defal loolu te fayal ñu nag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy kàddu yërmande bi yàlla jël yónne ko ñooñ àdduna ñuy séddoo ndono yonent boobu bi fi yonent bi bàyyee ko ba léegi ndono loolu ñu ngi koy séddoo mënuñu ko jeexal te nag wal anbiyaau lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran wa innama warrasu lilma faman aqasahu aqasa bi hassin ban ndono la fi yonent bi bàyyi ban ndono la yonent yi ko jiitu woon ci àdduna yan xeeti ndono lañ bàyyi ci àdduna pour ñooñ àdduna yonent yi bàyyiwuñu wërsëg wu ñuy donn bàyyiwuñu alal bu ñuy donn seen gannaaw bàyyiwuñu ay gétti nag walla ay gétti géléem yu ñuy donn seen gannaaw liñ fi bàyyi mu nekk ndono pour jullit ñi mooy xam-xam wallaay ndeysaan ndono yonent yi mooy xam-xam bi ñu jàngale ak jikko yu rafet yi ñu jàngale dem bàyyi ko fi loolu mooy ndono yi fi yonent yi bàyyi waaye mooy ndono bi fi yonent yàlla Muhammad bàyyi bàyyi ko jullit ñi mu nekk seen ndono ba pincum yàlla yonent bi bàyyiwu fi kër gu ñuy donn bàyyiwu fi alal ju ñuy donn li gën a yéeme sax mooy yonent bi bi muy faatu bi muy génn àdduna saxaaba yi gis nañ ne am na benn mbubbam bu mu yóbbu woon ci benn yahut tayle fa mbubbam ngir lu mu lekk tayle fa mbubbam ngir àndaaru tàndarma tayle fa mbubbam ngir lu mu dundalee njabootam tayle fa mbubbam ngir lu mu faje ay soxlaam gannaaw bi mu faatoo ci la saxaaba yi gis ne am na ku mu ameel bor benn yëwut bu mu tayle mbubbam ngir ñàkk sallallahu alayhi wa sallam ku toll ni yonent bi fi ko yàlla teg ni ko yàlla bëggee fi mu toll sunu borom nga xam ni fa tabarakallahu yeneen ki yëpp bàkku nañu bàkku ci tiranga yi leen yàlla defal xam nga ne suñu maam aadama kenn rawu ko ndax yàlla daf ko bind ci loxoom ba pare wal ci moom ruuxu digal malaaka yi ne nañ ko sujootal màggal ko ba pare mu dëkkal ko aljana ak jabaram yemu ci mu def ko xalifaam ci kaw suuf li yeb yàlla defal nako adama ali salatu salaatu wasalaam mu jël yonent yàlla noox fa tabaarakallaahu defal ko kaawteef yi mu ko defal jël jël yonenti yàlla Muusa wax moom ci tuuri Sinaa kenn doxul seen diggante فاخلق نخليك إنك بالوادي المقدس التوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها yàlla ko wax moo wax ak Muusa te benn malayka doxul diggante Muusa ak boromam mu jël Ibrahima def ko mu nekk xaritam wattaxasa Allahu Ibrahima xalila أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين yàlla jël xarit jox Ibrahim mu wax ak Moussa ca tuuri Sina bind yonent yàlla Eesa mu am ndey te amul baay ba di ko jiiñ doomu yàlla yal nañu yàlla musal takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa taqiru l jibaal li ñu ne yàlla am na doom sax asamaan a ngi tiit bay bëgg a doj yaa ngi tiit bay toj waaye suuf saa ngi xar ngir wax ju rëy ñu dégg ne Eesa doomu yàlla la léegi yàlla bu jëlee yi yépp jox yonent yi kon Seyduna Muhammad lan lay dese mu tax pour wan la dayoo yonent bi mooy kan li mu gënee yonent yi ak lim leen rawee daf ko rek léeg boromam te am na solo yonent bi def na yàlla da ne maa gën ñëpp lu bind maa tax dama bëgg nga wax ma li ma gënee yonent yi loolu laa bëgg nga wax ma ko mu leer ci suma nopp waaye leer ci suma xelu njaboot xamuloo sa sa kilifaa fi gën baax na lool waaye am na lu ko gën mooy ñu faxe ba wax la li mu gënee ñeneen ñi yonent bi ne yàlla dama bëgg nga wax ma li ma gënee yonent yi ak li ma gënee ku dul ñoom ndax bis bu nekk nga dégg bu suri di yuuxu faaqa na fii xalqin wa fii xuluqin ولم يدانه في علم ولا كرم محمد البصري نينا ينت يال محمد فيتي نا كاو فيتي نا كاو يننتي مولين تيم مون كاسين كاو بو فيكون اكزام لا yonent bi moo nekk ca kaw risol si mu am darajaat yi mu am ci exam bi amul benn student ci yonent yi boo xam ne indi nga risol bu baaxee noonu yonent bi moo nekk ca kaw faaqa nabiyina féetee na kaw yonent yëpp gaa yaa ngi koy séentu di ko séen ca kaw mënuñoo faxe ba àgg fa mu fa mu àgg lum leen rawee mu ne moo leen raw ci bind ni ko yàlla binde bindewu ko kenn moo gën a rafet ñépp waaye boo ñëwee ci jikko it jikko ju rafet yonent yàlla Muhammad moo nekk ca kaw yonent yi li ñuy rafet rafet jikko mënuñu faxe ba dab yonent yàlla Muhammad ci jikko ju rafet mu féete kaw ñëpp mu ne xam-xam nag ñu ne waa mu ne jegewuñ ko sax séenuñ ko tabe nag ñu ni amu tabe yi tamit séenuñ ko bi yonent bi jóg day fekk ñoom ñu ngay nelaw allahu akbar seetal ku la gën a taaru gën laa rafet jikko ëpp la xam-xam ba pare gën laa tabe bu ñu la laajee kan mooy yonent bi nel kooku mooy sayduna muhammad moo dàq ñëpp moo gën a rafet ñëpp jikko waaye moo raw ñëpp ci xam-xam waaye moo gën a tabe képp ku yàlla bind joxe rekk te yàlla tax yonent tibe ci rawoon ñëpp kenn dabu ko ci loxo bi da daan joxe di maye ba mel ni càll gis nga ngelaw ni muy fuufee yenent bi loxo bi noonu la daan duggee ci poos bi di génn di joxe buy dem di ñëw day mel ni càllweer day mel ni ngelaw moo tax dencul dërëm moo tax bi ñu ko fekkee benn bis mu tëdd ci dogitu basang dogitu basang mu jóg bant yi takk ci wet gi suuf si takk ci lex bi mu jóg saxaaba yi di ko faxasal bant yi ci yaram wi di ko faxasal suuf si takk ci yaramam wi waaye kenn mënta téye sa bopp ku ci nekk yaa ngi sotti rongañ nan ko wa anta ya rasulallah ay yow sang bi fi la yàlla teg ni la yàlla fonkee nit ñu gënee ni nga nekkee suñ sang ngay ñëw tëdd ci dogitu basag ba muy yàq sa yaram wi xanaa gisuloo buuru àdduna bi buuru Kisra ak Kaysar xanaa gisuloo ñooñu wota beet yi ñuy fanaan lal yu nooy yooyu nga xam ne am nañu lal ndox sax ndox lu ne am nañu ko te yaa leen gën yow ngay tëdd ci dogitu basang ba muy yàq sa yaram wi te nga nekk sangu àdduna ak àllaaxira sayduna muhammad na leen maali wa maali dunia maali wali dunia ana man ak àdduna ana ana man ak ay taaxi kaw ana man ak ay lal yu nooy yonent bi ci saasi mu xamal saxaaba yi ne ñoom moom àdduna taxu koo jog moom àllaaxira bu jeg moo ko tax a jog te fii la koy liggéeyee nag fii la koy bayee mu tax bi muy misaal boppam ak àdduna def ne dama bëgg ngeen gise ma comme doxandéem bu doon tukki ku amoon soxla di ko doxi soxla bu ko ñor di ko dox ci yor-yor wala digg bëccëg naaj bu tàng di dox ba ñaqatooy xepp tàngaay bi sonal ko mu romb benn garab bu sedd guyi mu toog ca ron garab ga di fiixlu pour yaramam sedd bu toogee ci ron garab bi ba noppaleku coono bi bu noppale ko rek day jógaat continuer waat dox bi mu ne man noonu laa mel ak àdduna àdduna taxuma jóg ndax yàlla noon na ko walal axiratu xayrun laka min al ula yàlla noon na ko maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baax ci saa si mu xamal leen ne buur yooyu duuñ suma nawle nawloo wuma leen ndax ñoom nit ci àdduna lañ te man àllaaxira ma tax a jóg saxaaba yi kenn mënta téye sa bopp ku ci nekk di jooy mu tax bi muy dem bàyyiwu fi dara dara lam fa bàyyi as ñu war koo donn sax def ne bu leen ko jox suma njoboot yonent bu faatoo alalu ndono ba mu bàyyi gannaaw alalu jullit yépp la ñépp a ko bokk du njobootam rekk a koy lekk moo tax mu indi fitna ci diggante Fatima ak Aboubacar parce que Fatima daf na day donnu baayam Aboubacar na ko doo ko donnu ndax sa baay moo ne yënant bu faatoo alal bu mu bàyyi gannaaw alalu jullit yépp la dañ koy def ci baytul maal jullit yépp bokk ko loolu la fi jàngale te loolu la ñuy def mu mere ko wallaay ndeysaan moo tax yonent bi ne yàlla boo bindee aadama aadama alayhi salaatu wasalaam ci sa loxo digal malaaka yi ñu sujootal ko nga dugal ko ci kër gu toll ni aljana defal ko fa teraanga junne ak soxnaam def ko mu nekk sa xalifa ci kaw suuf aadama moomu bëgg naa nga wax ma man Mouhamed lan laa ko gënee laaj bu am solo la lan la yonent bi gënee aadama yàlla ne ko aadama du sa nawle waaw moo la jur waaye yaay sangam nag boo gisee ma bind ko yow yaa tax tiraanga yi mu am yëpp sa ñëw gi moo ko waral waaye boo ñëwutoon aadama du am ku dul aadama du am mu tax gul seet sa bopp di tëkkale sa bopp ak aadama moo la jur waaye yow yaa ko gën mu ne ko lu ma ko gënee yàlla na ko aadama ci suuf laa ko bind ban bu ñuul kukk ci laa ko bind ba pare wal ci moom ruuxu defal ko teraanga yi ma ko defal mu ne ko yow nag yow Muhammad yow binduma la ci suuf du ci suuf laa la créé du ci asamaan laa la bindee du ci safara laa la bindee du ci ndox laa la bindee yow maa la bind ci suma leeru jë man yàlla dama coppati ci suma leer gi xaaj ci suma leer gi as lëf bind ci leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlaat ci sa leer gi nag bind ci aljina bind ci safara bind ci garab yi bind ci doomu aadama yi bind ci rab yi bind ci bind ci bind ci bind ci kon seetal fi ma la bind yow ak fi ma bind aadama du benn <laughs> yow ci suma leeru bopp laa la bind kon doo naw doo naw le wanteeg aadama ndax fiñ la bind moo gën a foor fiñ bind aadama ana min allahi wal muminuuna min ni waaw loolu la daan wax man ci yàlla la bàyyee ko rekk rek man nag ci man nga bàyyeekoo motax suñu góor gëni innal hawalima haliha wasafilaha ashiatun talaat min afdali nasami Sidi haji malik neena aduna bi wol bi nga ni waw mu ne la li féete kaw yeb muy asaman bidiwi jant bi wer wi ak li nekk ci kaw yépp ci ay bagages ak li ci suuf péppi suuf yi xeer yi garab yi ñax mi ndox mi wurus mi lépp ba ci bindeef yi dox ci kaw suuf ba ci ñi ci biir suuf ba juróom-ñaari suuf yooyu yépp alaaji Malik nee na ay ceeneer lañ yoo xam ne mu ngi soqee ko mu ngi bàyyee ko ci ki gën ci li yàlla bind mu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam bindeef yooyu yëpp yàllaa leen créé ci benn jëmm muy leeru yunti yàlla muhammad bu doon leer la ñu ne leer gi li muy tasaaroo yëpp boo ko dàqee mu ngi soqee ko ci jant boobu di yunt yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tax góor gi ne law lam yalu fi fadail kawni tal'atuhu xam nga luy xew ñu ne ko déedéet mu ne tabqal bariyatu fi salma'i allah bu yonent bi feñu tort ñu ne mu àdduna bi dañuy des ci lëndëm ban lëndëm ndax lëndëmaayu ñàkk làmp lay doon buubu sax garaawut waaye lëndëmaayu réeree yàlla ba dee mooy mooy dal ñoñ àdduna te loolu musiba du ko gën a rëy dund ba dee te xamuloo sa borom bu yonent bi ñëwutoon loolooy xew moo tax ko mbaaxam bu njëkk mooy faxe ba dàq riiree yàlla ci kaw suuf mhm. wallaay ndeysaan moo tax yàlla ne ko aadama du sa nawle yaa gën aadama Hmm? mu ne ko waaw yaa ngi jël Isa bind ko mu am ndey te amul baay di xolloo ku sëlmaxa di déggloo ku tëx di waxloo ku luu di wéral ku feebar di dekkal ku dee yàlla ne ko xam-xam boobu yépp Isa xam di ko def mu ko jëlee ci yow yow li Isa man yépp man nga ko ba pare man lu loo xam ne sax Isa mënu ko su dee médecine la xam-xamu docteur yàlla nee ne Seyduna Muhammad yaa ci raw Isa ku dul Isa kon Isa du sa nawle wallaay ndeysaan mu ne ko yaa ngi nii wax ak Moussa ci tuuri Sina wa kallama laahu Moussa taklima yàlla ne ko yóbbu naa la foo xam ne Moussa mënu fa yegg ku dul Moussa mënu fa yegg wa huwa bil ufuqil axla summa danna fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى يلا نكو يجنغ من فو خمني موسى يجو في ون موسى بما يوحك موم كيرا يبري دخل سوما ديغن تك موم waaye yow fii may waxe yow amul benn waasita bu dox suma diggante ak yow moo tax gisee ba beneen affaire la wallaay ndeysaan yonent bi bëggutoon a dellu si waat sax àdduna parce que ci pays boobu la bëggoon a dund ngir lëm fa yëg ak lam fa dund ak boroomam ndax dem na ba ni bu xoolee ci kanamam yàlla lay gis bu xoolee ci gannaawam gis yàlla ndeyjooram yàlla càmmoñam yàlla kawam yàlla suufam yàlla léppam di yàlla <coughs> moo tax bëggatoon a ñibbisi yàlla na ko ëpp naa def dama la indi fii pour mottali mottali la li nga manqué woon waaye da nga war a delluwaat adduna nag pour mottilil nit ñi li ñu mankile boo fi toogee adduna tukki su dee maqaama bii nga bëgg bëgguloo tàqale kook moom mu ne ko dinaa la jox sëri ci boo xam ne saay boo ne allahu akbar rek delluwaat ci xaal boobu ak environnement boobu ak maqaama boobu moo tax mu jël julli jox ko mu ne ko Ibrahima nag mooy kees bi da nga jël xarit jox Ibrahima léegi boo jëlee xarit jox Ibrahima kon man loo may war a tey jox yàlla ne ko maa ni suma xarit la waaye xarit gi moo ko sakku moo ko ut moo ko liggéey xaw nay dee bala ma ko nangul xaritiyaa bi tuuti Ibrahima dee daj na lu ne wallay ndeysaan daj na lu ne natt bu ne yàlla teg na ko Ibrahim tes bu ne yàlla tes na ko suñu maam Ibrahim waaye di ko dimbale muy paas examen yi rek te natt yi bu ñëw gën a métti وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن alquran la mu ne ko Ibrahima mooy suma xarit waaye yow Ibrahima doo nawlewanteeg moom yaa ko gën mu ne ko lu ma ko gënee mu ne ko yow yaay suma soppe anta habibi يا رسول الله يو ياي سما صبي إبراهيم موي سما خري واي يو ياي سما صبي يو محمد أنت حبيبي يو ياي سما صبي يالا نكو محمد تقام غني خريت نيخنا لول واي صبي نا كبير قول صبي دفو سوري نيت أنت حبيبي يو ياي سما صبي soppe mu ëpp doole moo gën a foor xarit mu ne ko anta habibullahi yow yay soppe bi yàlla bi mu tax kooku gën gi mu gën du gënantu daf leen gën daf leen gën wallaay ndeysaan ba tax na fa tabaarakallah di ngeen mun a bokk si ci waxtaan wi ci tuutiri tuutiri tuwantiri insha allahu taala ba léegi ñu ngi jàngat gën gi yenent bi gën mboolem yenent waaye gën ko mboolem ko yàlla bind gën leen ci ci juddu waaye gën leen ci jikko lu am solo la yonent bi xëyul rek taxaw ci péncu Makka xëyul rek taxaw ci biiri mbokkam na leen yàllaa ma yónni waaye dafa njëkk a defar boppam bi ay mbokkam naw ko ci yar ak teggiin ak jikko yu rafet mu góorgóorlu deferu ba pénc mi yëpp naw ko seede ne ndaw yi màkk yëpp mu Muhammad ci gën a jub moo ci gën a wóor ñu tuddee ko as-sadiqul amin ku dëggu ki ki nga xam ne kenn mësu koo xamee fenn ku wóor ki nga xam ni dafa jub ba mos ta lekk dërëmu kenn ñu dem ba lu ay maamam ak ay baayam di dénkaane ñu romb fi ma dénk ko Muhammad ngir wóor gu Muhammad wóor ak jub gum mu tax bi balam leen di wax ne yàllaa ma yónni daf leen njëkk a xamal ne ndax bu ma leen waxoon ne xur wi yu ndax bu ma leen waxoon xibaar boobu di ngeen ma gëm mag ñëpp yëkkati seen loxo na ko yow loo ñu wax ñu gëm ko maa rab na aleyka kasban yow mosuñ laa xamee fen yow bi nga xamee sa bopp ba tey jii wax dëgg lañ la xamee njub lañ xam ci yow mosoo fen Muhammad mosoo xa fen siital boobu record ku ko am ci sa biiri mbokk ñëpp taxaw ne xale bii mos ta fen mosul fen lépp lu mos a wax nit dëgg la mu ne ah yéen a ko seede ñu ne waaw mu ne mu ngoog salaamaaleykum Abba naam papa jërëjëf. jërëjëf Baro waxtaan bi nee Baro. amin amin yaa waaye. Mhm. li ustaas waa ni suñ julli gi ay màgg na. Mhm. man taalibe laa waaye xaw ma dara. billahi waaw loolu akbar. wallaay ndeysaan. allahu akbar. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ndeysaan ndeysaan suma nit la. suma xarit la. ci suma ujaaj la. ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yokk fanam yokk wiram yonent baa ngug mu ni leen yéen ko seede ne mosumaa wax fen ñu ni ko mosoo a fen mu ne bis ni tey nag maa ngi leen di xamal ni inni rasulullahi ilaykum yàlla def na ma yónnent ba pare yónni ma ci yéen ne naa leen woo ci baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah lu am solo la mu tax boo fi bëggee nekk député walla nga bëgg fee nekk alkaali walla imam walla président salaamaaleykum yaay jaata. maaleykum salaam wa rahmatulah. Xadijatu na nga def. jaamu rek sant yàlla. naka waa Costa Route. ñu ban si sant yàlla. alhamdulilah bismillah. waa bi neex na. jërëjëf. ñu ngi bëggee Seydina Muhammad. sallallahu taala alayhi wa sallam. yàlla na yàlla fay. leen. amiin amiin yaa rabbi amiin. dama lekk bi ne soo ak kii soo amee doom nii. damaa gis ñu ne dañoo am doom di leen di ko tuddee naan Aïcha Rasoul nag bintu Rasoul damaa gis loolu dagal na wala baax na wala baaxul. ñu am doom tuddee ko. da ngaa dégg ñu naan bintu Rasoul wala ñu naan Aïcha Rasoul wala ñu naan Awa Rasoul. ah ok Awa Rasoul. waaw Rasoul bi laa lu mu tekki. waaw kañ. bintu Rasoul mooy doomu yonent. waaw Awa Rasoul mooy awa bu yonent ay dàkkental la rek mooy nit ñoo xam ne dañoo sopp Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jël seen tur yi boole ko ak tuur tur yonent bi waaw sopp nabi waaw yu mel noonu waaw loolu la rek gàtt nga yu baax la adresse yu baax la waaye nag am na lu ko gën mooy ku dem bay tuddee sa bopp awa rasul wala di tuddee sa bopp bintu rasul wala di ooye sa bopp sopp nabi war ngaa góorgóorlu ba kooku nga tuddee sa bopp nga faxe ba boo melut na meloon ci jikko yu rafetit nga góorgóorlu ba ku la gis xelam dem ci kooku loolu mooy solo si waaw waaye ñu tuddee la Muhammad rek doyut tuddee la Moustapha doyut tuddee la Fatimatu bintu Rasul doyut waaye faxeel ba jéem a roy yenent bi ci jikkoom yu rafet yooyu loolu mooy li am solo waaye tur yi kese amul solo égale nga gis kuy tuddee boppam awa rasul ah, la tuddee boppam ah, bintu rasul ah, bintu habib bintu Mustapha nangam nangam waaye bu jëfee rek fa tabaarakallaahu nga xeeb ko ñu jël Fatmata Mbaalo furam Neema salaamaaleykum. maaleykum salaam oustaz. Fatou na nga def. bismillah Fatou. na def. alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. ngi sant yàlla bu baax. naka foofu. alhamdulilah Mballo. ngi si jàmm. ngi si jàmm bu baax. Oustaz Waare bi nee de. jërëjëf. yàlla mu yàlla fay la. amiin yàlla nañ ko jëriñoo nag. yàlla may ñu wér bu yaram a wér yàlla mu yàlla yàggal na suñu kanam. amiin amiin rabbal alamin amiin. jërëjëf ndeysaan ñu sant ko bu baax a baax kon yooyu yu baax la yu am solo la waaye li ci am solo nag mooy faxe ba ki ngay tuddee sa bopp nga faxe ba mel ni moom wala jéem a mel ni moom loolu mooy solo si walla ay ndeysaan waaye bu fekkee ne ci colin bi rek la des hmm? wala mu des ci ci kurus yi rek walla ci ci wax yi rek walla ci tur yi fa tabaarakallaahu su boobaa dootul amati solo kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li jàngale gën gi mu gën ku dul moom muy xol bi ko yàlla joxoon ni mu bare woon yërmande ak ni mu mënoon a jéggalee jéggale yonent bi kenn dabu ko ci jéggale man a jéggale moo ci raw ñépp wallaay ndeysaan mu tax amoon na yërmande ba bi mu nekkee ci alimatu sax di ya am na benn xale bu mu àndaloon ci caawo gi di sàmm xale bi jël benn et sànni ko benn gàtt benn xar tànk bi damm waaye gis nga xar boobu dafa génn ci biir xar yi di jooy di soox di wuti yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ba ci kanam yonent bi ndeysaan mu sukk boole koog di jooy di meem mel ni koy jàmbatal yonent bi li xale bi damu tànkam allahu akbar seetal xar buubu bi mu amee problème demul ci kenn jooyu dem ci kenn dafa romb bindéef yépp romb àll bi ñëpp dem ci yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di soox di yuuxu di soox di yuuxu ba yegsi ci ñaari tànk yonent bi sukk ci kanamam mel ni ku koy jàmbatal naan ko xoolal ni ñu dammee suma tànk bi allahu akbar seetal rab yi rab yi ni ñu miine woon muhammad ngir yërmande bi yonent bi amoon waxuma xajoo nit waaye rab yi sax dañ koo miinoon xar bi ñëw sukk ci kanam yonent bi mel ni ku koy tawatal di ko jàmbatal damm gi tànkam bi damm allahu akbar mhm. yonent bi bàyyi soxlaam yépp téye xar mi mel ni ku téye nit boo gisee cër bi mu jox xar mi yitte jim ko jox yëg-yëg bi mu ko jox bàyyi lim jàppoon yëpp sukk ci suuf fekk xar mi ci suuf téye tànkam bi téye tànkam bi commencé di jàng la muy jàng ndeysaan di raay ci tànku xar bi di jàng di raay ba yax yi yax bu ci nekk delluwaat palaasam yonent bi teggi loxoom ci tànku xar mi mu mel ni xar mi mosta damm bi ko yàlla bindee ba bisu keroog mbokki yi billaahi xar mi wax na dëgg ndekk li taxoon mu doon jooy romb xale yépp dawuti muhammad moy yërmande ji yàlla def ci xolu yunti yàlla muhammad la lutax mu romb ñep ñëw di tawatal yonent bi problème bi mu am moy xam na ne yonent bi mo meuna safara dam damam bi mo meuna safara jangorom bi waaye yunti yàlla muhammad moy docteur yi docteur yi motax bim joye ba yek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal tànk bi yonent bi gis ne tànk bi dafa damm mu sukk xar bi di jooy yonent bi téye tànk bi tàllal ko jubbanti ko ba yépp ànd mu commencé di ñaan di raay ci tànk bi ba yax yi damoon bu ci nekk delluwaat palaasam bu ne jàppaat sa moroom mu teggi loxoom tànk ba mel ni mustadam kooku ni ko nit ñi daan dawee di jublu nun la ko rab yi daan dawee di jublu mooy rahmatan lil alamin wallaay ndeysaan <coughs> te yërmandem ji dafa laaf ñu baax ñi ba laafaale ñu bon ñi wallaay ndeysaan mu tax nga nii lam li mu ñu gënee li mu ñu rawee kenn mënu ko jeexal ndax min kulli wasfin hamidin حاس afala tafdilin rajaul baraya يوم مزدهم بيب ملوكان wala jikko ju rafet ju ñuy nawee as gor nga xam ni melo la wu yàlla gërëm jikko la ju yàlla gërëm ba ca gën a baax ya ca gën a baax moom la yonent bi amee woon baax am na waaye gën a baax am na yonent bi nag yi gënoon a baax moom la ko yàlla sédd والله ندسان يجنا بخ مملكة يال سيد موي أفعل تفديل متخ فتبارك الله وارني نيو غور غورلو ci jema jangat kan moy yonent yalla Muhammad ñu jël Omar mbalo folo forom wili ngara assalamu alaykum Omar. alaykum salaam. Omar na nga def. jaama rek ay alhamdullilah waaleykum. bismillah. wa alaykum salaam. Omar bismillah yow la. jaama rek ay ah, deglul ci mobile bi rek ta baña a ci tele bi waaw waaw waaw maa ngi nii di kontaan si programme bi. jërëjëf. programme bi neex na trop trop. alhamdulilah. ba pare maa ngi siy jàng bu baax a baax. alhamdulilah. kontaan nañ si yow tamit bu baax a baax. yal na yàlla kontaan ci ñun ñëpp. pare yàlla yàlla yàggal fii tamit. amiin amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbal alamin amiin. waaw am naa naa trop am naa tool bi moo fees daal. Mm. waaw dëgg la dëgg la kontaan nañ macha allah Omar. Mm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. kon fa tabarakallahu ñu ngi koy sant bu baax. di leen wax ne yonent baa ngoog yàlla ni ne lépp lu ngeen bëgg ci mbaax ci jikko ju rafet ci melokaan yu rafet yonent yàlla Muhammad mooy seen marché. wuti leen ko ci marché boobu lépp a nga fa laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sayduna muhammad mooy marché jullit ñi xam nga marché ñàkkul dara muy yunti yàlla muhammad yàlla nii mooy seen royukaay mooy seen rôle modèle lépp lu ngeen soxla ci jikko ju rafet melokaan yu rafet wuti leen ko ci moom lépp nga fa te nag bu dee ni jub rekk ngeen soxla na ngeen ne coow ci alquran ak sunnaam si ndax wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko toppee rek jub kon mbokk yi yal nañ yàlla bëggaloo yonent bi yal nañ yàlla xiir ci sunnaam yal nañu yàlla xiir ci roy ay jikkoom ak ay melokaanam yal nañu yàlla boole ci soppi sayyiduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam gërëm nag mbokk yi nga xam ni ñu ngi ñu doon topp ci biir réew mi ak bitim réew yépp di gërëm soxna Khady Diassé ci wàllu technique bi ak soxna Silla gërëm fa tabarakallahu mboolem ñi àndoon ak ñun di leen jox dig daje incha allah ayu bis bii di ñëw wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh again